amati mbégte ak bànneex si topp gi ngeen ñuy topp su sunu seen bi di de Dakar 221 noo ko gisandoo noonu mu doon ab mobilisation bu am doole lool foofee sa Ranérou ñu daat ko fay nemmeeku ay ndaw yu takku lool def seen i convoi def seen i karawaan ànd nag rek ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko foofee rek sa Ranérou di yuuxu lenn rek la fii ñoo ko moom Ousmane Sonko moom rek la ñuy topp Ousmane Sonko moom rek lañ daal di gëm ñu daal ke nemmeeku foofee nga xamante ne si na moo di sa raneeru naka si tey ji si ngoon gi rek mu daal téeméer na rek daal na fay am doole lool ndax ñeel ki xam ne moo di Ousmane Sonko ak karawaanam rek nekk mobilisation bu am doole war fa jaar ñu daal di nemmeeku rek population bépp daal di génn askan teeru ki xam ne moo di Ousmane Sonko. tiis ak naqar foo fekk bànneex am na ñuy tiis aw naqar wala ñu koy jooy mu doon li nga xamante ne si ne dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daat ne wàcc si boobee la campagne élection législative ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef bu Touba naka si nag seen caravane wala seen convoi boobee nga xamante ne si ne doon na ko doon wër di ko amal lekk am seen benn oto bu xamante ne si ne daf sa rek daati këpp kasa bokk nag turu tuy wur yoo si turu Modou Tall bokkoon ci GPS bu Mbacké moom rek ñu ne moose rek daati ñàkk rek la nga xam di bakkanam ak ay blessés yi xamante ne si ne daati neske say nemmeeku sa boobu la COVAD bi xamante ne si ne funu nga amoon fu nu dëgmal daat fay jubale waaye nag ba dem sa yoon ba rek sa la wota ba daati këpp mu jaa say doxe rek li nga xamante ne ne di bakkanam mu doon wuyu si trop Modou Tall ñuy wax ne loolu la rek bokkoon si GPS bu Mbacké amon bokkoon si Pastef patriote du Sénégal Sénégal amoon sax Pastef loolu moom kooku di Modou Tall ñu koy ñaanal rek yàlla nag yàlla yërëm te xaare ko rek àjjanay fir daw si mu doon ab campagne élection législative bi xamante ne si waa Mbacké amoon na noonu ay koova ak ay karawaan di wër rek la nga xamante si ne moo di gox-goxaan yi féetee sa boobu leboor pour rek dagaan la nga xam ne moo di la bat askan wi pour rek ñu fal leen foofee sa assemblée nationale ñu daal fi am majorité nekk sa